jërë ngeen jëf corona baa ngi bëgg a mel ni fitt gu mbër sànni ci réew mi jàngoro ngi law ndànk-ndànk ci Sénégal l'observateur nañu fan yi yëpp ñaari cas corona la ñu doon wax ci réew mi léegi nag ña nga ca ñeent ndax gis nañu yeneen ñeenti nit yu amee coronavirus ci réew mi waa ministère de la santé ñoo ko xamle ci communiqué démb bu ñaar ñi ko mujjee am ay jigéen lañu kenn ki mooy jabari waa ji bosam feeñe woon ci hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye keneen ki ci des benn doomu Angleterre bu jigéen bu toll ci fanweeri at ak ñett keroog altine ñaar fukki fan ak ñeent ci wéru février ci la dugg si Sénégal Sénégal sénégalais yi libération nee nañu ku ci toogoon cib nen jamono jii du toj ndaxuk jaaxle covid 19 ni muy lawee moo leen tiital le quotidien bind ci xëta mu njëkk ne covid bi mooy lëmbi réew mi di dicté lu am ci sénégal am na yeneen ñaari cas yu feeñaat démb soleil national nañu looloo waral président national di Macky Sall démb ca ndajem conseil des ministres santaane nañu gën a waggar ci frontières yi yokk surveillance gi bu baax a baax ci frontières yi ngir képp kuy duggati ci réew mi ñu xam a génnati gëtam les éco nañu moom ci jëmi boppam di président de la république jël na dogalub toog ci réew mi téye tànkam ne mboolem déplacement yi mu doon nësër annulé na ko ba ci tournée économique bi mu waroon a tàmbali mars dàq na ko yóbbu na ko ba avril grand place xamal ñu ne njiit réew mi bëggatut a gis ci réew mi ay xew-xew yu dajalay mbooloo moo waral bésub seetal bi ñu baaxoo samedi bu njëkk ci weer wu nekk di cleaning day président Macky reporté na ko quarantaine palais ba teg ca ne muy ministre élevage Samba Ndiobène Ka ak ministre agriculture Moussa Baldé ya ne woon ca salon agriculture ba woon ca Paris ñoom ñoom dañu leen a far jéggal conseil des ministres bi woon démb Mamadou Ndiaye di professeur ci wàllu communication ne ñu ci biir l'observateur loolee mënoon naa ñàkk du communication bu baax ndax dafay gën a yokk askan wi ak tiitaange ñi war a tiit ci seenu ëllëg ci wetu Macky Sall l'observateur nee nañu ñooy ministre d'État yi ak les ministres sans portefeuille ne ku ci mel ne Mbaye Ndiaye Mahmoud Saleh ak Mariam la fay xew léegi dañu leen koy nittali tax président seppi na leen ci coronavirus bi ba tey ca la des ak le témoigné mi gis ak pëcc xookook salfaañoo maanaam cacophonie ci ni ñu koy xeexee ci réew mi la mu ci njëkk a gis moo di président Macky Sall mi ngi fagaru di protéger boppam bu nuppi di exposé askanu Sénégal ñaareel ba di ca aéroport Blaise Diagne dugg bee génn baa nga mel ni tulleeg màlle ci biir kaso yi nekk ci réew mi ña fa nekk ñoom it am nañu tiitaange ci coronavirus bi ba tax di fa ñaareelu cas coronavirus bi feeñe woon ak waa ji amul kenn ci ñoom ku ñu ci quarantaine lise ko nañu personnel hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye li ñu def moo gën a garaaw ndax waa ji amoon corona ba mu fa demee dafa am ñu ko doon filmer ak seeni téléphone portable ministre de la santé nag nee na leen bés bu yëf yi génne ñi ko génnee dina mitti ci ñoom loolee lise ko xamal ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr ak i gaayam di waa ministère de la santé caaxaane wuñu ko taxaw nañu ci jonn Socé Diop jonn tëb na le témoigné nañu ndaw si jiite woon agence construction bâtiment ak édifice public président Macky Sall na ko te li waral ñu dàq ko tëbal ko tudd gi ko tudd ci ci rapport OFNAC bi ci la les économies guléet ci nguurug Macky ñuy tuumal nit yorinu bon ci rapport ñu teg la ay daan suur soi mel ne ñu daan des na ndax moom Socé Diop Dione ca procureur de la république la jëm laajte bi nañu OFNAC teg na procureur bi ci kanami responsabilité ndax li ñu tënkee ci seen rapport d'activité jébbal nañu ko Serigne Bassirou Gueye fi mu nekk ni moo yore ca guyam guyuk l'islam daanu na Baye Fall ba génn soleil national ak le ñoom ñëpp xamal nañu ne sëriñ Abdourahmane Fall Tilala dafa accidenté démb ba jaare ca faatu mook soxnaam aku bëkk néegam le quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne Tilala des na ci Ila Touba gi Wally Ballago Seck nañu ci l'observateur ñëpp ñàkk waaye moom moo gën a ñàkk ndax ñëpp xamoon nañu ne Chérif Abdourahmane Fall Tilala du woon sëriñ rekk ci moom l'observateur nañu moom Chérif Abdourahmane Fall Tilala tey jii ci la ñu koy jébbal boromam ca bàqee ca Touba Touba Daaru Salaam Karo mbaa yéen a nga ca yeneen ñaari doomu aadama ñoo dolleeku ci ñaar ñi amoon jàngoro gi di coronavirus ci réew mi ba yokku lim gi ba ñeent mbir yi nag ma ngay tàmbalee doy waar enquête quotidien yi waa ji njëkkoon a am jàngoro ji tay atam tolloon ci juróom-ñetti fukk soxnaam fekk si na ko ci l'hôpital fa ndax moom itam gile jàngoro di coronavirus da ko laal keneen ku mbiri laal ab anglaise la fanweeri at ak ñetti la am moo yokku mbiri nag ba ñeent enquête ne njiiti réew Macky Sall ma ngay sàkku nag ñu gën a dëgëral taxawaay ba noppi bés bu ñu jàppoon ngir sargal jigéen ci mim réew yem ak juróom-ñetti fan kon ne bésub set setal bi nu jàppoon juróom-ñaari fan ci weeru mars bi ak bés bu ñuy sargal jigéen ci mim réew lépp dan koo dàq ba jëme jamono moom njiit réew mi yemu ca ndax tournée économique bu mu bëggoon a amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars dàq nañ ko ba juróomi fan ci weeru avril yéeglekaay bi ne njiit réew mi Macky Sall dàqal na lépp loo xam ne ay déplacement la ba noppi dëj ay ministre ci mim réew voyagé moom jeex na jamono ji le quotidien covid 19 di coronavirus bi mooy buur mooy dicté am ci mim réew Walf Fadjri lépp lay bousculer ba noppi toog fukki alerte ñeenti cas positif ak ñeent fukk ak juróom-ñaari doomu aadama lu ñu ne dañoo laaleeg ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro te ñoom ñëpp nag jot nañu xam ana ñoom ñooy kan yéeglekaay bi ne koy doon tiit naan dafa am biire jàngoro ca Daaru Musti ba ñu ko testé ba noppi xam nañu ne gile jàngoro amee ko maanaam kon test yi daa négatif critique ne fukki alerte juróom-ñaari cas suspect ak ñaari cas US ñoo am ci gile jàngoro ci mim réew looloo tax ba noppi sàkku nag taxawaay gu yaatu ci frontière yi ci réew mi ci taxaw gi nag 24 koy amal ci mim réew Sud Quotidien ministre Moussa Baldé ak Samba Diobène jamono ji ci isolement la nekk njiitu grand parti Malick Gakou di sàkku ci état bu Sénégal ñu daal def état d'urgence sanitaire ci mim réew ndaxte nee na jàngoro gi nag fu mu toll ci mim réew caaxaan faaxe waaye loolee terewul gouverneur bu njaareem di góor gi mbay mu amal tey màggalub Kazu Rajab gi ca Poroxaan laas ne njiitu réew Macky Sall jël na ndogal bi benn ministre gi moo ko waral yëglekaay bi ne jumaa murid nag bile la tribune da nga cee jalgati sa tura nga fa libération ne Aliou Sall Franck Timis Ousmane Sonko Ibrahima Mbodj Birahim Seck Awa Ndongo Mamadou na ci nu a yaatoo laas ne ginnaaw rapportu OFNAC gi yat bi nag tàmbale ne dal ci kaw ndigg ñi nga xam ne dañoo jalgati ci lu ñu leen dénk yéeglekaay bi ne Macky Sall njiiti réew mi nag tàmbale na duma ñi jalgati ci lu ñu leen dénk ci mim réew te mbir yi ci Socé Diop jon la tàmbale Les Échos ne guléet lu ñu mel am ci mim réew rawatina ci nguuru Macky Sall bi koo xam ne APR nga bokk te sa tur jib ne lu ñu la dénk jalgati da cee am yat bi dal sa kaw yéeglekaay bi ne Socé Diop jon ay mbiram nag ma nga ci loxo procureur de la République te of nag moo ko ko jébbal lañ koy tuumaal mooy yoroon gu bon ci alalu réew mi société civile bu Sénégal ma ngay xaar ci Serigne Bassirou Gueye procureur de mu dem ci ba jeex tàkk yéeglekaay bi jokk kàddu gi Babacar Ba njiital forum du justiciable ni procureur nag la xaar ci moom mooy dossier yi ñu ko jébbal mu dem ci ba jeex tàkk ba képp koo xam ne dangaa jalgati ci luñ la dénk yat bi dal ci kaw keneen ku addu ci mbir yi mooy Birahim Seck ne nag la may xaar ci mbir yi mooy li ci ñëpp di xaar maanaam képp koo xam ne say dossier mu ngi ci kaw table gi yat bi dal sa kaw yéeglekaay yu bëri yi ñu xëyandool tey xëy ñu tàggee Serigne Abdourahmane Fall Touba gi moom ak soxnaam ak bëkk néegam fa saasa lañu ñàkkee seenu bakkan te tey jii daañu leen jëbal seenu borom ca dëkk bu tedd ba Touba Mbàkke l'observateur ne li am dëgg nag ci bëre l'accident maa leen koy nettali dikkaat ak ñun l'accident bi ni mu tàmbalee ba ni mu ñàkkee bakkanam yéeglekaay bi yamu ca ndaxte dikkaat na ci dundu sëriñ Abdourahmane Fall ba noppi jox kàddu gi kenn ci moom di Waly Balago Seck mi ñuy xamal ne sëriñ bi la ñu ñoo ngi waat ca bërëb ba Walf Fadjri ne marchand ambulant yi nag yëkkati nañ leen foofu ngir liggéey BRT yi waaye terewul ñoom marchand ambulant yi ak seen njaay ñoo ngi waat ca bërëb ba ñu bàkku jëm ci làmba fekk fa Balla Gaye 2 doomi Double Less gi yéeglekaay bi du ñu xamal ni ndax moom Balla Gaye 2 du dem ci ñetteelu année blanche ndaxte atub ak yëpp takkul ngembam 2019 takk ngemb sëgg bëri ci mim réew te la ca gën doy waar yéeglekaay bi ne ba ñuy tudd diggante Bombardier Tapha leer amu l'observateur xëy dinu nettali loo xam ne moo raw film 24 heures ndaxte nee na ab waay moo liggéey baaji ba noppi cambriolé kër gi ba noppi jël ay millions yu baaji daw ak moom da nga Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ñeenti nit yu am feebar bii di coronavirus la ñu nemmeeku fii ci biir Dakar yeneen ñaar ñu mujj yi nag démb la ñu leen daal di gis Sud Quotidien du ñu xamal ne kenn ki moom mooy soxna ci ki nga xam ne amoon na feebar bi te mu dëkk fa li nga xam ne moom mooy ca parcelle demoon ba fa li nga xam ne nag moom mooy ca daal di koy nemmeeku keneen ki nag mi ngi am ci lu tollook fanweeri at ak ñett nekk doomu réewum Grande-Bretagne moom nag yegg si na nag fii ci biir Dakar ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ñaar ñooñu kon dem nañu fekk ji yeneen ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk feebar ci li nga xam ne moom mooy coronavirus autolikaay bii di Sud Quotidien diñ ci yokk duñu xamal ne feebar boobu tamit démb waxtaanee nañu ko torop sax ci conseil de ministres autolikaay bii di Sud Quotidien sax di ñu xamal ne njiitu réew mi ba feebar boobu du gën a law fii nga xam ne nag moom mooy ci mim réew ba ca njëkk moom mooy nag ne moom ci boppam sax léegi dafay dakkal dem ak dikk yi nga xam ne dañu ko doon def ca bitim réew moom tamit ak ay ministre ma la daal di xamle sax jolikaay bi di les échos ne kon Macky daal dinay dakkal lépp lu jublu ci wàllu ay déplacement ba pare ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay jëwriñam daf leen xamal ne kenn buum ci jóge nag fii nga xam ne de moom mooy ci biir réew mi laas yéene kaay ne kon Macky daal dinay tëj ay ministre ma fii ci biir Sénégal tere ne leen nag ñu daal di génn mi ngi leen di xamal ne ci dëkk bu nekk am nañu fa ay représentant bu ñu fa soxlaa réewum Sénégal nañu dem wax ak ñooñu nga xam ne ñoom ñooñu fa toogal autolikaay bii di waa Grand Place di ñu xamal it ne lu weesu euh, mesure yooyu njiitu réew mi tamit daal di ne xamle ne bésu setal bi nga xam ne nag ci juróom-ñaari fan ci weeru mars dañ ko fas yéene woon amal dañu ko euh, dàq ba jëmi jamono ak tamit journée de la femme bi nga xam ne ci juróom fan ci weeru mars lañ ko fas yéene amal lu weesu it yenn ci ay matuwaay yooyu nga xam ne nag moom la njiitu réew mi daal di fësal moom it ñu ngi ñuy xamal ci biir julikaay bi di la soleil bëgg na tamit ñu gën a saytu lépp lu jublu nag ci wàllu frontières yi maanaam daal dëkk yi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jege képp koo xam ne da fa jógee di dugg nag fii ci mim réew ñu daal di lay nemmeeku bu baax a baax te li ni tamit dinañ ko gën a taral fa li nga xam ne moom mooy ca aéroport international Blaise Diagne ndaxte foofu képp koo xam ne rek da nga ci ab dëkk boo xam ne feebar ba dafa lëmbee su boobaa moom dinañu la saytu bu baax baax foofu nga xam ne nag moom mooy ci aéroport international dañu fay des ndax ci coolikaay bi dal te mooy ngi ñuy xamal ni ñu fay liggéeyee de ngi ci njàqare bu rëy la ko waral moom mooy ne nee nañu daal lu weesu masque yi ak tamit gel antiseptique yi amul loo xam ne daal ñoo ngi koy def jëmale ko ci ñii nga xam ne nag ñoom ñooy faral di jokkoo ak passager yi ak tamit yi dawal bus yi ñoom nag ñu bëgg moom mooy ne ñooñu ñëpp nañu leen daal di testé wante yow coolikaay bi de xew mi quotidien moom la mu gis moom mooy ne Macky waxul nag la mu waroon a wax maanaam daal am na ay xew-xew diine yu bëri yoo xam ne nag moom la ñu dëgmal ci weeru mars bi te pourtant de amul ante nag dañoo nar a sukkandiku ngir wax daal ne dañuy saytu nag lépp lu jublu ci wàllu wéer gi yaram daal di ci profito di ñaax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy askan wi ngir ñu moytu daal di raj loo ak tamit gën a yeesal lépp lu jublu ci wàllu condition di d'hygiène suñu naataangoo yëculikaay bii di xew mi quotidien ñoom la ñu gis moom mooy daal ne ci ay xew-xew yoo xam ne nag nit ñi fépp la ñuy jógee di dajaloo loolu moom day gaaw ngir daal di lawal ay feebar vox populi kon di ñëwaat ba léegi ci tolluwaayu feebar bii di coronavirus fii ci biir Sénégal ñu xamal amoon na fukki nit yoo xam ne dañ leen doon joxoñ baaraam ne dañoo am feebar boobu wante ba ñu liñatoo seen yaram ñeent dong de la ñu xam ne am nañu feebar bii di coronavirus ci lu tollook ñeent fukk ak juróom-ñaari nit yoo xam ne nag dañoo jege woon ñi xam ne de ñoom ñoo am feebar boobu ñu ngi leen di saytu bu baax a baax waa OFNAC ginnaaw ba ñu daal di fësalee seen rapport aculikaay bii di critique mi ngi ñu xamal ne dafa mel ni ne ki def cee sukkandiku nag ngir dàq ki nga xam ne de moom mooy soo Socé Diop Dione ndaxte moom bokk na ci ñi nga xam ne nag OFNAC daf leen a kepp moom moomu di Socé Diop Dione moom moo nekkoon doon ki jiite agence de construction des bâtiments et édifices publics daal dinañu ko fay jëlee ki ko fa wuutu nag moom mooy Amady moom mi nga xam ne moom moo nekkoon directeur de la construction ci ministère de l'intérieur léegi nag suñu naataango yi di laajte lu weesu nag kii di Socé Diop Dione kan moo ci topp ndaxte waa OFNAC ñu bëri la ñu daal di kepp autolikaay bii di tribune ne li am ba des daal moom mooy ne OFNAC moom def na liggéeyam jël na dossier yooyu yëpp nag daal di koy jox procureur de la république léegi moom dong moom rek de la ñuy déglu nag ci lan la fas yéene def jëmale ko dossier yooyu bu ñu xamee tamit ne dossier yi nga xam ne moom lañ fa mujjee indi am na yeneen dossier yoo xam ne daal ma nga fa woon bu yàgg-yàgg tey ji ci alxames ji la ñuy fas yéene nag amal màggalu poroxaan autolikaay bi di direct news duñu xamal ne kon tey jii dinañu daal di màggal soxna maam bu Buso mbooloo bu takku nag ñu ngi leen di xaar foofu nga xam ne nag moom mooy ca poroxaan ca lu poroxaan googu sax la kii di Abdourahmane Fall Tilala doon dem moom doon dem wante nag mujjul yegg ab accident la am ba mujjee ñàkk nam jolikaay bii di l'évidence duñu xamal ne moom mooy kii jiite communauté moor bi nekk fii ci biir euh, Sénégal dem na ci accident bu métti la daal di ñàkk bakkenam groupe sud communication di jébbal njaalam njabootam ak képp koo xam ne da nga bokk ci biir communauté moor ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana lii moo nekkoon ba ci li a fës ci biir jolikaay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bu sa jaam